نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضاني هذه سنتي فرضا لله تعالى jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di euh, nuyu bu baax am mbégte lool ànd ak yen fii nga xam ne moom mooy ci kër Cheikh Baye njaay borom la solution tàmm nañ ko say yu ñu gàmmoo ba noppi dañuy ñëw daju ci këram mu def li nga xam ne moom mooy déclaration wax mbébétam si nga xam ne moom mooy ci diwaanu Kaolack gile dinañ taxaw itam ci actualité xam ngeen ni récemment la fi président Bassirou Diomaye Diakhar fay jóge waaye itam dinañ waxtaan ci li nga xam ne moom mooy Kaolack ni mu mel ci wàllu assainissement ndax yéen a ko gisandoor seen bopp boobaak léegi ku nekk mu ngi ciy wax dinañ wax itam ci euh, sortie bi nga xam ne Serigne Moustapha si def na ko démb dinañ ci taxaw ci na mu gën a yaatoo cheikh bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la ndokkeel itam ci gàmmu gi nga xam ne moom la ñu jógee aouzu billahi min alcheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim subhaanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alxakim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ginnaaw bu ñuy jullee ci yonantu bi sallallahu taala alayhi wa ñoo ngi leen di nuyu ci nuyoo bi gën ci nuyoo muy nuyoowu jullit di assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, ginnaaw loolu balaa ñuy dugg si si question yi nga xamante ni actualité jamono ji la mm-hmm. ñu wax ci li nga xamante ni moo ñu dajale tey fii ci Medinatu Cheikh Ibrahim mm-hmm. di mawlidu nabawi sharif di bëgg a àddu suñu kàddu lu jëm ci mawlid bi di lance benn message bu yam ci mbëggeel bi nga xamante ni Mawlana Cheikh Ibrahim am na ko ci sangam bu tedd bi rasulullah sallallahu ku xam Baye Niass xam ne léppam rasulullah sallallahu alayhi ku xam Baye Niass xam ne li ko yàlla may ci njaboot su fekkoon ne téeméer la soo jëlee lu mat juróom-ñeent fukk lépp yonantu bi sallallahu taala alayhi wa sallam la leen tuddee soo jëlee muhammadul maahi al khalifa mm-hmm. rasulillahi la ko tuddee nga jël muhammadul amin mm-hmm. rasulillahi la ko tuddee nga jël muhammadul aaqib mm-hmm. rasulillahi la ko tuddee nga jël muhammadul nuuruddin rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la ko tuddee nga jël muhammadul mansour rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la ko tuddee nga jël muhammadul mun amina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la ko tuddee mhm. nga jël muhammadul nasir rasulullah sallallahu alayhi wa la ko tuddee mhm. kon suñ doom liim tey njaboot yu góor yi nga xamante ni yàlla dénk na ko lu ci ëpp yonent bi sallallahu taala alayhi wa la ko tuddee mhm. kon nga xamante ni dëgg-dëgg kii moo bëgg sang bu tedd bi kii moo xam gëddam kii moo xam dayoom yemut ci foofu xam-xam bi nga xamante ni sunu borom dénk na ko di xam-xamu lislaam di xam-xamu sharia di xam-xamul xaqiqa lépp lum ci xam ba sonnee ko ci kattanam jën na mboolee mu xam-xam yu ko yàlla dénk jagleel ko rasulullah sallallahu alayhi wa lu lum bind lépp rasulullah sallallahu alayhi wa la ko jël jox ko ko addiya mhm. lim bind ci ay woy yëpp rasulullah sallallahu alayhi la jël jox ko addiya kon nga xamante ni kii dëgg-dëgg mooy général rasulullah sallallahu alayhi mhm. ci loolu rekk nga jël ci waxam li lay firndeel na dëgg-dëgg Cheikh Ibrahim mbëggeelam ci yonantu bi baxrun laa saaxila la géej la goo xamante nii amut bànqaas amut fu nit mën a jafandu mm-hmm. da ngay fee ba sonn rek ba fu foo yem rek nga yem foofu ci moom lañ jàngee mu ne isa saarat xayral wara surtout waraahu mm-hmm. ñu daf jàngat bu ndaw lan mooy isa saarat xayral wara surtout waraahu mu ne si yonontu bi dama visé yonontu bi teg ko bët concentré wu ci moom ndax nit sooy ànd ak moom nga bañ a def njuumte dangay ngay viser si moom teg ko bët mm-hmm. bàyyi ne noonu la tegee yonantu bi bët su yonantu bi joggee ngir liggéeyal lislaam bàyyi ñes mu ne ma joggi liggéeyal lislaam mm-hmm. su yonantu bi taxawee ngir gàgganti masalaab sharia bàyyi ñes radiallahu taala mi ne mu taxaw gàgganti masalaab sharia mhm. yonent bi joggi na daf ay xare daf ay gazawaat ngir lislaam bàyyi taxaw na xare ngir julli di dugg ci biir lislaam ku gis xare ba mu fii ba Nigeria ku gis xare bam mu def fii ba Ghana joggi na fii ba Cameroun joggi na fii ba pakistaan joggi na fii ba Karachi joggi na fii ba Afghanistan joggi na fii ba Chine ngir liggéeyal kan mooy sangam bu tedd bi rasulillah sallallahu alayhi kon kii moo bëgg rasulillah moom moo ñu jàngal moom Baay Ñas radiyallahu taala anhu ne mbëggeelam ci yonantu bi jiitu na mboole mu mbëggeel loolu foor na inna nii xabla al baraaya xubbuhu shughulul ni leeri yonent bi jiitoo mboole mi leer huwa aslul usuli wal anjaali yonent bi mooy cosaanu lépp bàyyi nee na sama mbëggeel noonu la jiitoo mboole mu mbëggeel si rasulillahi moom moo ñu jàngal ne nañ yonent bi alayhi wa mooy ki nga xamante ni nuuruhu awwalul wujudi leeram moo jiitu mbooleem am ak li yàlla amal kon suñ teewee ci dëkk bu tedd bi nga xamante ni dëkkab lislaam la dëkkab barke la dafay baax ñu fàttali ko yu mel nii mm-hmm. di lancer message ñi nga xamante ni ñoo dëkkee dëkk bi ci ndaw ñi mooy na ñi gën a defarwaat te xam na jàngali Mawlaana Cheikh Ibrahim dëgg-dëgg jàngalay lislaam la jàngalay sharia la mhm. suñ ko visé ñun tamit comme ni mu visé rasulullah sallallahu alayhi wa duñ mës a def benn njumte mhm. ndax moom foofu la tegoon tànkam taalibe yi nañ gën a góorlu ci taxawaay bi ñu war a taxawee ci Medinatu Baay mhm. nañ gën a góorlu ci gëdd gi ñu war a jox Medinatu Cheikh Ibrahim ci côté yëpp ñu fi dëkkee tamit nañ góorlu ci gën a jox dëkk bi gëdd ndax dëgg-dëgg Medinatu Cheikh Ibrahim teral na leen mm-hmm. maa ngi dégg sax si gàmmu gi ginnaaw bi ñu inauguré li nga xamante ni mooy place bu tedd bu màgg bii mm-hmm. di esplanade bi esplanade bi nga xamante ni taaroom kenn mënul laa wax ni mu toll ci lislaam kuñ mbaaral mm-hmm. yonantu bi lañ mbaaral mbaar la ñu ngi sant yàlla ci mbaaral yonantu bi am na ñu ñuy saboote naan mbaar ngeen tabax ñu ngi wax ñooñu ne leen islaam bi du yëfi concurrence lislaam léppam leer la mhm. ñi nga xamante ni ñi ngi jël ay baat di ko sànni Medina baay dafa fekk ne dafa am fuñ gisee loolu moo tax ñu ñeme loolu mhm. ndax démb rek maa ngi dégg ay nit di critiquer li nga xamante ni mooy esplanade bii nii naan dafa fees dañoo tëj bunt bi nit ñi xajuñ fa mhm. nañ leen waxante dëgg ñi nga xamante ni ñoo dëkk Medina Baye kenn warta xëccoo ak gan yi nga xamante ni ñooy ganu yonent bi ci esplanade bi mm-hmm. munuñ fee nekk at bi yëpp di gis bayaal bi di dem si jumaa ji di dem si xabru bi gani rasulillahi sallallahu alayhi wa yi ñëw ñun ñu taxaw ne dañu xëccook ñoom place yi mm-hmm. loolu rafetut ci gis loolu boo ko gisee rek li muy indi ci blocage dafay bari kon yu mel nii ñi dëkkee fii nañ ko xam su ko defee ñi leen di fekk si ñoom danañ xam ne dëgg-dëgg nag ay kilifa lañ ci fekk si ay wali yàlla lañ ci fekk si mm-hmm. loolu rek laa bëggoon a sànni ci li nga xamante ni mooy ci gàmm gi beneen bu ci des mm-hmm. balaa ñuy ñëw sa question bi mooy ci actualité mm-hmm. ñi ngi dégg benn waaye mu naan téere mag ñi dañ koo war a jooyanti ndax dafa am ay erreur yoo xamante ne mu ngi ci dañoo war a jooyanti yi Maulana Cheikh Ibrahim dañoo war a jooyanti téerey maam Serigne Touba dañoo war a jooyanti téere maam Maodo dañoo war a jooyanti dañoo war a jooyanti léegi nag su dëgg wa su dëgg su su wax bëree dëgg dafay nëbbu day làqu coow su bëree dëgg làqu dafa am kuy wax mu nekk nit koo xamante ni nit ku am oral la si opinion publique bi kuñ xam la te kàddoom dafay dem fu nekk mhm. te nit soo taxawee nga ne boroom xam-xam nga dem nga ba peese sa niveau intellectuel ci lislaam balaa ngay wax yenn poropo yi di ko jëmale ci ay mag ñoo xamante ni say chef lañ ci diine mhm. war nga kaa xoolaat bu baax war a xool booy jooyanti ak na ko war a jooyantee lu tax ma wax loolu mhm. ndaxte moom aji wax ji di Cheikh Omar Diagne mi wax ne dañoo war a jooyanti téere yi dafa am ay njuumte wala ay erreur yu ci nekk dañu cee war a indi ay réforme kan mooy Cheikh Omar Diagne kan moo war a corriger téere mag ndax yow da ngay dem jàng benn téere wala da ngay dem lire ay information wala dañ laa digal wala dañ laa wax loo xamante ni yow amoo si information yu dëgër nga ñëw taxaw ne kat mag ñi seen téere yi ñu bind ay njuumtey kase la wala ay erreur kase la déedéet ku xam Cheikh Omar Diagne xam ne nit la jullit la di sénégalais mu am droit bu baax ci li muy def mm-hmm. waaye Cheikh Omar Diagne génnewut ci école lislaam jàngut arab ba fer mu ngi génnee ci école français intellectuel la waaye jàmbaar la di góor góorlu ci diinam ba toll tey fii mu toll ñu ngi ko koy nangul mm-hmm. waaye soo nekkee intellectuel nga ne boroom xam-xam nga waxuma kenn bu mu corriger wala kenn warta jooyanti dara lenn rek lañ mënta jooyante mooy alquran mhm. moom nga xamante ni dafa mat ak wax yonantu bi waaye lu dul loolu mën nañ cee def ay indi si ay jooyanti kon sooy jooyanti wala ngay corriger ay téere ay mag yoo xamante ni say chef lañ si diine l'islam balaa nga leen ñu corriger da koy teg ci base yu leer dañoo bind bàyyi fi yow da ngay bind corriger leen ñu xam ne yow mii mën nga leen a waaw ndax président tey suñ koy su defoon tey benn délit ñi jàpp ko woor koo atte est-ce que tribunal yëpp ñoo koy atte question la dama leen a laaj tontu leen ma dafa am benn tribunal rek boo xamante ni tribunal yu gën a mag si tribunal yi ñoo koy atte mhm. kon mag ñi seen téere yi soo si bëggee atte dana fekk yow lañ naan lugatul arabiya nga peg ko lañ naan xam-xamu sharia nga peg ko lañ naan xam-xamu xaqiqa nga peg ko lañ naan xam-xamu balaaga nga peg ko lañ naan xam-xamu mantiq nga peg ko lañ naan xam-xamu naxw nga peg ko lañ naan xam-xamu sharf nga peg ko mhm. nga doog a mën a corriger ñii ndax lañ bind tagg ko ci yonantu bi wax ko ci xam-xam am na ay arab sax suñ koy liir dañ naan ñii duñ ay nit yu ñuul ñii ay nit yu weex lañ te ñii kat duñ ay arab ñu mën a lakk ba dégg lakk yaaram bi ba mun see sadd ay baytu yu mel ni nga xamante ne am na ay arab soo leen ko tegaloon mënuñ koo bind si yonent bi kon kan moo war a corriger du moom moo war a corriger bindam mag ñi bëgg nag di wax ñi ne la yaa fi mën wala yaay gaynde wala yaay ponkal li ngay wax dëgg la ba tax nga dugal sa bopp loo xamante ni waroo see dugg loolu erreur la njuumte la mhm. mag ñi ku leen respecté wut jox leen cër mandul ci ñoom ndax liggéeyal nañ lislaam démb tey soog a ñëw liggéeyal nañ lislaam ci wax liggéeyal nañ lislaam ci xam-xam liggéeyal nañ lislaam ci jëf Medina Baay bii nii dara nekku fi woon lislaam moo ko sanc xam-xam moo ko sanc mag ñi bañ fiy doog a ñëw ñu ñu nettali yu bari ay taarix ay neew lañ daam lekk ak ay sump ndax ndax xiif ak ñàkk luñ lekk tey la neex rek tabaxal nañ lislaam ay masaajid ngir yëkkati lislaam wa anna al masaajida lillahi falaa tad'u ma'a allahi ahadan tabax nañ ay madaaris ngir jàngal nit ñi ngir ñu xam seen diine bind nañ ay téere ngir xamal leen kan mooy seen yonantu soo leen corriger si jëf nga leen ñu corriger ak ci lu wér ak ci dëgg waaye pas toog di def ay manipulation yoo xam ne amul benn njëriñ njumte nag du wees mhm. nit juum amut soo bëggee liggéey lislaam wala nga bëgg a daf fatwa ci lislaam ndax ni mu bëgg a corriger mag ñi fatwa lay def te fatwa faw nga am ay xam-xam bagage yoo xam si xam-xam da cee war a toog nga doog a daf fatwa ci lislaam mhm. kon soo mateewut foofu wala jàngagoo foofu noonu da ngay dem jàng ba mat nga bind ay téere sadd ñoom nuñ bindee sadd bàyyi ñu sa radiallahu taala anhu corriger na waa Màkka bañ bëggee jël maqaama Ibrahim toxol ko mhm. est-ce que daf leen a corriger si ngaañ yi ndax xam na ne jullit du daf loolu daf leen a corriger bind téere sadd ko tontu leen ci loolu ba loolu moo tax tey maxaam Ibrahim kenn toxalu ko c'est ça loolu mooy xam-xam waaye bëgguñu indi xam-xam boo xamante ni nga dem liir ay téere ay faramaçon ñëw di xool ab juma xooloo ci yàlla di ci xool ab signe buñ ca def di ko tiiñal ay nit yoo xamante ni ay nitu yàlla lañ ndax al ulama warasatul anbiyaay nubuwa jeex na rusul jeex na rasulillahi mooy xaatimul anbiyaay wa imaamil mursalina ñu ci des nag ñoom ñooy waarisatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mag ñii ñoom ñooy ndonoy yonantu ak képp koo xam ne am nga xam-xam te jub te sell bokk nga ci ndonoy yonantu bi ndax mission bi du taxaw kon dëgg-dëgg njumte yu mel nii en tant que ñun ñu naan dëkk jullit lañ Sénégal di dëkk boo xamante ni dañ naan quatre-vingt-quinze pour cent musulman lañ waaye quatre-vingt-quinze pour cent musulman lañ yàlla na ma ko yàlla baal waaye quatre-vingt-dix ay jaahil lañ man xamuñ seen diina dara loolu moo tax ku jug rek wax ci diina rek nax leen te loolu warta am ci dëkk bi nga xamante ni ñu ne ñun ñëpp ay jullit lañ kon su ko defee ñu ngi wax kuy def loolu wala ñu mel noonu di def loolu suñ amee li ñuy jooyanti wala li ñuy tuumaal mag yi nañ ko daf ñiy ànd ak ñoom di def na ko sudul noonu ndax boo demee makkatal mukarrama madinatul munawar doo fa fekk ab naar di daf naka su dul noonu nga jël la muy def askan lay ko yonantu bi dañ waxante dëgg boo ko defee tooñ nga yonantu bi tooñ nga lislaam tubaab yëpp wala lu ñuy tax ñuy jiiñ lislaam gi terrorisme ay nit ñooy def ay njaawteef ñu jël ko taqal ko jullit yëpp rasulullah sallallahu alayhi wa loolu daf see set wecc mag ñi dañ see set wecc ku am sa ñaawteef ci jullit yi di ko def ku am sa ñaawteef si mag ñi top mag ñi toppoo tànk mag ñi di def lu uuteeg mag ñi lañ def loolu yow la engage waaye engagé woon mag ñi mhm. lii kat bëgg ñu ñëpp ñu xam ko te ñu bàyyi ci xel loolu laa bëggoon lu ma am lu ma sànni foofu su ko defee ñu bàyyi leen kàddu gi ngeen indi question yi incha allahu taala su ko defee ñu tontu si te mën a yëkkati jotaay bi si kàttanu yàlla. d' accord jërëjëf Cheikh euh, Baye Ndiaye borom solution l'unificateur euh, borom euh, mouvement bu mag bile la ñuy tàmbalee waxtaan bi naam dañu koy coof tuuti rek moom mooy. visite bi nga xam ne njiitu réew mi président Bassirou jomaay jaxaar fay euh, amal na ko ci dëkk bu sell bilee naam ñeen dégg nañ sax ñenn ci ñi nga xam ne ay mu baay lañu euh, di wax naan dafa yéex ñu bari ci ñoom visite bi euh, ban analyse la ci cheikh bi def laata ñuy dem ci deuxième question bi. ah boobu lañ ci wax lu néew la lu gàtt la président Diomaye fay ñi nga xamante ni ñoo jiite réew mi moo xam ni premier ministre moo xam ni ministre yi dañ leen a dénk réew mi ngir ñu servir ñi mm-hmm. ñoom amuñ droit ñu tànkam lu kenn ba ma ciy teg mooy ne ñëwam fii ci Medina man leer na man naññi ci lu wér ne moom rek moo ciy jërinu waa fi loolu mm-hmm. te moom xam na ñëw gi jëriñ gi mu ko jox boo xoolee ci tertu bi nga xamante ni tertu nañ ko ko amul kenn ku ko réserver tertu bu mel noonu mhm. ay mag ay wali yàlla ay boromi xam-xam ay boromi dayo ci huit lañ toog foofu ba une di ko xaar loolu xam nga ne kii jox nañ ko cër waaye est-ce que ndax dégg na message bi man de loolu président laa koy bàyyeek ak ñi ànd ak ñoom est-ce que dégg nañ message wala gis nañ message bi mhm. man loolu rek laay sànni si wax jooju su fekkee ne dégg nañ message bi fa lillahi alhamdu su sek fekkee ne dégguñ message bi ah président tiital naa la xoolal bu baax ñu la jox cër ñu la jox sa gëdd ak ñu la jox sa dayo nga jox leen gëdd jox leen cër jox leen seen dayo loolu rek laa am lu may sànni ci loolu. d' accord jërëjëf bi beneen question boo xam ni itam d' la ndax ba ñu xëyee ba léegi euh, ku nekk mu ngi ciy wax ñu bëggoon am itam sa aperçu par rapport ak. Euh, kàddu yi nga xam ne cheikh bi démb daal dina ko yëkkati di Serigne Moustapha Sy euh, dañuy gis à chaque fois Cheikh Baye Ndiaye la solution bu yenn yi amee ñëpp dañuy fax dem dégluju ko ñu bëggoon itam nga defal ñu analyse ci kàddu yee nga xam ne Serigne Moustapha Sy yëkkati na ko yëkkati na ko démb jëmale ko ci le premier ministre Ousmane Sonko waaye itam ci son président Bassirou Diomaye Diakhar fay waaw sëriñ Moustapha de li ma xam ci moom jàngat ko ci moom maanaam du nit koo xamante ni kenn jur na ko wala kenn jënd na ko ba tere koo wax li nga xamante ni moom la xalaat. Mhm. dafa am ay nit yoo xam ne dañoo nekk Sénégal yàlla daf leen a may ñi nekk genre nit yooyu maanaam ñoom lépp luñ sentir gis ko loolu dañ koy wax ndax nag lam wax jaadu na wala jaaduwul. loolu ña ngi koy ñu ngi koy delloo ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko seqoon mm-hmm. te nag buñ fàtte sëriñ Moustapha Sy ku jàpp la ci projet Pastef bii jàpp na ci guddi jàpp na ci bëccëg mm-hmm. jàpp na ci zaahir jàpp na ci baatin mu neex ak mu naqari ndax ba mu méttee bokkoon na ci ñi nga xamante ni jàppoon nañ ci kon su demee ba remarqué dara ba tudd ko wax ko premier ministre la ko wax na ko premier ministre jël au sérieux te bañ cee déglu ay waxu militant ndax nit ku la dimbale démb donte ne benn xaraf sax si la la dimbee ay la yéwén la nga war lante woon ak moom ci dayo mhm. jox ko ko loo ca mën ndax nit mënul lépp man de loolu lay ñaax ñi nga xamante ni mooy premier ministre mhm. te xam ne nag ku nekk libre nga wax la nga xalaat moom lam xalaat la wax gis na ne dañ ko tuutal te gis na ne jàppoon na ci projet bi te gis na ne kat projet bii bu bu nekkutoon ña ca jàpp benn bi ñaar bi waa Pastef ak ñeneen kon du yegg si fii mhm. kenn mënta xeex si senegal fii ab xeex wala ab projet ba gañe ko te àndoo ci ci ay nit mhm. tey boo gisee man mi tey lu ma am ba am fit gi ñi nekk fii ni taw ma nii ñoo ma may fit googu ñoo ma may jom googu ñoo ma may courage boobu yaa ngi gis délégation bi nga xamante ni ñu ngi jugee ko waa New York ñëw ñu ngi fii mm-hmm. si njiital Cheikh Baye Seck yaa ngi gis waa Dakar si njiital Hassan Khadi moom Dakar la dëkk léegi fii sax la dëkk waaye Dakar la dëkk léegi nga gis waa mbuur mm-hmm. ñoom sëñ Abdullahi bàyyam di imam ca mbuur nga gis ñoom Hassan Cheikh Hassan bàyyam di kilifa di wali yàlla fii ci Medina nga gis ñoom cheikh ñi nga xamante ni jugee ko nañ ak gis ñi nga xamante ni jugee ko nañ Gàmbi kon doomu aadama lépp lu muy yëngatu am na ñu koy fekk ci loolu di dimbalante ak ñoom. Mhm. nañ fexe nag ba bu projet bi antoo mel na mu war a mel. ka ca nekk lam ca war am ca gëdd ak dayoo jox ko ko. Mhm. du ko wàññi dara. mais bi jàpp nga ni projet bi ba léegi am na. waaw projet nag mënuñoo wax ne projet bi antu na. Mhm. mais projet bi kay am na. projet buñ tënk wax ko bind ko xaatim ko ay nit di ko doxal ñi dem ba daaneel nguur ba yéeg mhm. mooy projet bi am na waaye beneen projet moo des mhm. mooy jëmmal projet bi mhm. loolooy des foofu la leen nit yi di leen xaar loolu nag xam-xam moo koy def politique jeex na Macky la fi nekkoon ñu koy xarab mënut xamut jaana pétrole bi nangam nii ñii ñoo ñëw tey nañ fexe ba lañ doom xarabee Macky sàll ñoom bu ñu leen ko xarabe mhm. lii rek mooy wax ji ñi fexe nag ba lañ war a liggéeyal askan bii di Sénégal te nga xam ne mérito nañ ko ñu fexe ñu liggéey ko mhm. ñi bañ a jël ñépp di leen noonoo te ñu xam ne fii nit yi duñ seen ay noon Sénégal bi ñu ñëpp ko bokk mhm. benn dëkk la kenn mënu ko xar ñaar ndimbal googu nekk na loo xamante ni suñ ko defee ñoom dina leen jëriñ ndax ñu ngi gis xale yi ñu ngi fàq di jël géej man maa ngi leen di lancer message mhm. en tant que samay mbokk en tant que samay nawle en tant que jeune comme yéen ne leen toog leen ci réew mi réew mi ñu nekk ñun ñëpp ci ay mand jama ak or ak pétrole si lañ toog nit ki nag balaa ngay toxu naan kër gii ma nekk arrangé wun ma damay toxu beneen kër jéemal xam ci li nga toog lan la mhm. tey orop ñoom ñoo soxla Afrique waaye Afrique soxlawut Europe tey da ngay dégg français bi naankat man France neexut damay dem Suisse mhm. nga dégg waa Suisse bi ne Suisse neexut damay dem Allemagne nga dégg Allemagne bi ne Allemagne neexut damay ñëw Suisse tey ba jox la exemple rek ci loolu ci wàllum audiovisuel ci wàllum cinéma ci li nga xamante ni seen métier la tey américains yi suñ produire ay film wala ay musique wala yum ci mënta doon suñ ko doon jaay Amérique du jaar Afrique lañ koy jaay tey buñ dugaloon ay produits pour ñu am ci un million bi wala dix million bi du gaaw faaw ñu jaay ko africains yi africains yi ñoo yéegal affaire bi ñoo yéegal baar bi mhm. kon Afrique dafa nekk dëkk boo xamante ni su luñ ko mën a misaal mooy dëkk la boo xamante ni jànq la dafa vierge kon kenn du am jànq bu vierge nag itam di xoole ab koo xamante ni ab njagamaar la kon gone yi nañ góor góorlu ci dëkk bii du politicien bi nag moo ñu ciy génnee. Mhm. faire très attention nag waxuma ne politicien ñoo ñu ciy génnee man mosumaa gëm loolu. mosuma kaa gëm ci nguuru Macky Sall mosuma kaa gëm ci ñi fi nekk nii. Mhm. gëm naa ne danañ liggéey te war nañoo liggéey waaye du politicien ñoo ñuy génnee ci lii ñu nekk lañu ñu génnee mooy ñun ndaw ñi la ñun jeunesse bi ñun ñoo jéem a xam ci liñ toog lan la. ñu xool ay guide wala ay nit yoo xamante ni dinañ ñu orienté ci xam-xam ci xarala yu bees yi loolu suñ ko mën a jëfandikoo dana doon loo xamante ni koom la duñ soxla di dem Europe wala suñu dem Europe kat dañuy produire ba mu baax jël ko yóbbu ko di ko jaay européen yi. Mhm. loolu rek laa amoon lu may sànni ci. d' jërëjëf Cheikh Baye Ndiaye la solution ñu dellu Dakar ndax nag euh, président keroog def na li nga xam ne euh, moom mooy euh, adresse à la nation doon itam ci la dissolution de l' assemblée nationale. Euh, wax itam ci li nga xam ne moom mooy réduction des comptes déclaration politique général bi nga xam ne premier ministre waroon na koo def naam yaa ngi jiite mouvement te xam ne sa mbébét lenn képp la moom mooy dem ci assemblée nationale bi de euh, ni ñu ko def cheikh bi bëgg nañ itam nga defal ñu ci jàngat. waaw li ñuy def jàngat ci loolu rek mooy ne gouvernement bu bees bi nekk ci réew mi. Mhm. na moytu. bañ a def erreur yi nga xamante ni gouvernement biñ fi wàccee daf ko defoon mhm. ndaxte Sénégal man dafa am loo xamante ni saay bu ma ko gisee daf may métti damay dem ba dama si bëgg a jooy sax mhm. ndax dañuy fàtte Macky sàll ba ko yàlla maye mu ñëw si gouvernement bi diiru benn at ñaari at ñett at dëkk bi dafa métti lépp la booleke ubbi ay audit nangu ay passeport yi jàmbur booleke dëkk bi ne sëriñ si ay citoyen simple lañ dëkk bi lépp boloke si fay wanto ñi dem ba ci biir mu mujj lâché léegi xolal tardement boobu mu am sénégalais toog di la xaar mhm. nga war a liggéey jox leen résultat nga war fee nekk di topp ay nit mhm. yoo xamante ni yow leer na la ne ñu ngay topp ñuy defuñu dara ndax information képp ku koy am état moo la ëpp information mhm. jël mbir nag bëgg koo jël di ko politiser dana yàq ki nga xamante ni résultat bi mu war a indi du ko mën a indi. Mm-hmm. wàññi politique bi politique jeex na. Mm-hmm. jamono ji fu ñu toll mooy li ñuy xaar ci ñoom mooy ñu liggéey suñ fi nekkee di toppante di fayantoo danañ tàdd ci lu bari ndaw yaa ngi nii di fàq di dem ci géej gi kenn mënul leen a tere jamono ji te kenn mënul leen a aaye jamono ji nii. Mm-hmm. loolu nag fàqdam Europe bi lan moo koy jeexal mooy suñ gouvernement yi ñu wóolu fi ba teg leen fi ñu fexee liggéey dëkk bi ba def Sénégal mu mel ni comme pays des dëkk xalij bi dawlo xalij yi katar doo fa gis benn ku dëkk Qatar di génn di dem immigré parce que seen waa dëkk préparel nañ ko avenir am ba dootu soxlaati feneen mm-hmm. te Sénégal amut lenn lu ko katar ëppalee dara Sénégal Maroc bii nii rek amul lu ko ëppalee dara mbànd yi jama ak i or ak i pétrole ak ay jeunes yu fresh ak climat bu baax ak ndox bu baax kon lii képp ku ko yàlla may may na la lépp la ca des nag mooy ci xam-xam nan la ñuy def ba am ay leader yoo xam dañuy dimbale ñu coppandi xam-xam googu noonu ngir def ko ci ndaw ñi ndaw ñi dootuñu soxlaati Europe te boobaa sax dootuñu soxlaati di dem di def ay politique yi ndax yëfu politique yi yëfi taade la mm-hmm. ndax ñu ko maîtriser wut bëriwul ñu ko maîtriser ñu néew lañ dafay tardel dëkk bi tey ñoom suñ defee loolu su leen neexee mën nañoo gouverner santa kenn du lijjanti ñoom lu ñu yor lan la donte na moomuñ ko waaye nañ góorgóor ci am nañ ci yaakaar mm. lu tax ñu am ci yaakaar ndax ay sénégalais ñoo leen jël gëm leen ca lañ leen dig bañ fal leen mm-hmm. kon dama ci am yaakaar waaye nag su ma si amee yaakaar tamit du tere ma leen di moytuloo erreur yi nga xamante ni président yi fi jaar daf nañ ko loolu laay moytuloo président Diomaye Faye mhm. te moom am na sens ndaw la mhm. tey ndaw yi ñoo yor àdduna ñu ngi wax naan amul xam-xam ñu ngi wax naan bëriwul xam-xam ñu ngi wax naan nangam na kon sénégalais yi jël nañ ko jox ko ab occasion na wane dëgg-dëgg la nekk si boppam bi moom premier ministre bi na wane xam-xamam ci sénégalais yi ñun foofu lañ leen xaar jamono ji ndax waxtu ba nga xamante ni lañ doon digg ak wax temps bi jeex na liggéey moo ci des. d'accord jërëjëf bi maa ngi doon wax sànq ci sa euh, mouvement bi nga xam ne itam daal di nga ko créer euh, ñëpp xam ne ne mbébét bi lenn képp la mooy dem ca foofee ci assemblée nationale bëggoon nañ taxaw itam ci déclaration euh, de politique générale bi nga xam ne boobaak léegi premier ministre defu ko. buñ tasee assemblée bi tas nañ ko ba noppi buñ amee élection ba dem ci ak jàmm ba pare si na dem daf déclaration de de géné déclaration générale politique générale am ndaxte bu moy na moytu ndëgg sërëx yi nga xamante ni ay noonam ñu ngi ko koy fakkal mu bañ cee daanu mhm. ñu ko ëppoon fuuf jaar nañ ci mel nii ñu taggal leen ay ndëgg sarax bañ daanu si Macky sàll mii ñaata ndëgg sarax lañ ko tegal mu daanu ci ci ay erreur politique dañ fexe ba erreur yooyu ñoom ñii moom premier ministre moom président ak képp ku nekk ci ñoom ñu bañ a daanu ci erreur yooyu mm-hmm. li nga xamante ni loi bi moo ko tënk ñun ñëpp ñu yem si nañ fexe ñu jëfee ko kilifa kat noonu lay wone ab kilif teefam mm-hmm. soo bëggee ñi ngay yilif ñu respecté la fexeel bay dox doxini kilifa mhm. bu ko defee loolu yow boobaa yow sa jaan wàcc na ku la gëm affaire am la ku la gëmul yow la la war yow daf nga ko ngir yàlla ak yonent bi ngir sa dëkk bi nga xamante ne ñoo la sagal mhm. yëkkati la ab mbir jox la ko du sa xam-xam ndax ñu ko ëpp xam-xam bëri fi du dayo ci wàllu juddu ndax yooyu amul sens waaye loolu wërsëg bu ko yàlla cërale la mhm. wërsëg na su la ko yàlla cëralee da ngay dellu ñi nga xamante ni ñoo la jox wërsëg boobu noonu nga jox leen seen wàccuwaay. jërëjëf Cheikh bi question sa yéene ci fii nga xam ne fi nga fekk baax di euh, médina Baye. Mm. waaw wax nga ko ñun yàlla def na. Mm-hmm. Euh, yonantu bi sallallahu alayhi mooy sunu référence si politique. Mm-hmm. man dama gëm politique. waaye gëmeewuma ko ni sénégalais yi di xoolee nitu daara bi. waaw man damay def politique bi nga xamante ni yonantu bi sallallahu taala alayhi wa sallam moom la dafay politique ak politique bi nga xamante ni sama sëriñ sama turandoo sama wasila sama référence ci lépp ci diina noonu la dafay politique mi Maulana Cheikh Ibrahim mooy politique pour defar la waaye du pour yàq politique xam-xam la politique njub la politique leer la politique jaamu yàlla la mhm. waaye foog nañ ne léegi sax kuy wax politique rek dafa am loo bëgg wala dafa am loo namm loolu politiciens yu yàqu yi ñoom ñoo fexe ba yàq image u nit yi mm-hmm. en tant que citoyen nag ba ñu yàlla dimbalee ñu teel a comprendre loolu si lañ ci commencé nañuy liggéeyee ci wàllum daaw bi ci lislaam bi ci diine ji si tariqa bi ci faydu bi ñu taxawal mouvement boo xamante ni ñu ngi tudd MLS la solution mm-hmm. ñu ngi ciy liggéey tey bokk nañ ci ñu participer ba daaneel gouvernement bi fi nekkoon mm-hmm. dafuñ ko nag ndax dañ leen a bañ dañ leen a dénkoon mënuñ ñi xeex loolu ba dind ko fi mhm. kon nag kon ñun ñi ngi participer ci dëkk bi ñi ngi demoon ci élection yi ànd ci ki nga xamante ni mooy Pape Djibril Fall mhm. ñu bëri ñi ngi ma doom moqué di ma reetaan ci loolu lu <laughs> waaw ñi gaa yaa ngi koy tooñ ñi naan yàgg a baax yàgg ñi naan borom jooy yi ñi naan amut fit waaye xale la waaw. mais lu tax nga choisir Pape Djibril Fall quand même. waaw la lu tax ma choisir ko si élection yi défi la ndaxte dañoo bëggoon participer. Mhm. ndax Sénégal dafa am lum xewle foo ñu participer si te def nañ ko. Mhm. tey bu foog buñ foog ne waa Pastef ñoom rek ñoo daaneel état bi déedéet donte ne ñun 1 pour cent lañ am wala 2 pour cent am na lu ñu si participer. Mhm. booy daaneel ñi te loolu buñ ko xeeb kon moom lañ àndaloon si élection présidentielle yi. ñi ngi xool nag ba xam dañuy àndaat ak moom ci élection yi nga xamante ni mooy législative wala dañuy dem ak suñ liste bopp créer suñ liste woo ci doomu daara yi woo ci waa Kaolack woo ci waa Médina yi daf ko dugal ci doomu daara yi mhm. ñu jiital ñu su ko defee ñu mën a dem ci assemblée nationale taxaw fa xeexal suñ gox bii di Kaolack mhm. nga xamante ni gouvernement bu fi ñëw rek da nga koy fàtte leen fay luñ am nag mooy ñun suñ ñaan yàlla lañ am ak suñ sipporte di leen supporter ci lu ngeen nekk mm-hmm. ñu ngi bokk ak yéen coono gi mm-hmm. waaye di leen ñaanal yàlla képp ku nekk ci yéen moo xam organe boo mënta yor yàlla na doon télévision bu dugg ci satelit bi lépp lu ngeen bëgg ci métier bii ngir liggéeyal ko seen réew ngir liggéeyal ko àdduna yàlla na leen ko yàlla yombal beneen bu ci tegu ñi ñëw ci gàmm gi yëpp daaira bi ñu nekkoon ci waañ bi daairatu nuurul xaq mahaba wa siddiq ñu sonn ci gàmm gi yëpp ñii def si seen dërëm ñii def si seen ñaar dërëm mhm. ñii def si seen ñaq ñu ngi leen ñaanal yàlla di leen gërëm ci taxawaay bi ne li ngeen def dafaloo leen ma ko man mii sama jëmm ji waaye yàlla ngeen ko defal ndax yàlla moo nekk suñu diggante man ak yéen mhm. kon ñu ngi leen ñaanal yàlla yàlla gën leen a taxaw di gërëm ñi nga xamante ni teew nañ ci jotaay bi tudd naa leen sànq bëgguma jaaraat di guddal temps waa Amérique yi waa Ndakaaru waa Mbuur waa Louga waa Gàmbi mm-hmm. di leen wax ñu ngi leen gërëm bu baax ak mbokk taalibe yi ñëw ak daayira bi yëpp ne leen kat yoon bi nii la nañ gën a góorlu jàppante dimbalante te yàlla tax ndax ndimbal na ca fekk loxol boroomam te ñun nag yéen lañuy sagoo te xam naa ne yéen tamit man ngeen ñu sagoo nañ fexe dak ñi dimbalante ñi sagalante mm-hmm. ñu fexe kat ba la nga xamante ne moo nekk suñu diggante ñu góor góorlu ci ba def ci li nga xamante ni moo gën a kawe suñu ndoort beneen bi nag di jox rendez-vous waa mouvement MLS la solution di leen wax na leen liggéey bi ña nga ci woon démb ak tey kon tey nañ defarwaat takku taxaw pour préparer li nga xamante ni moo jëm ci élection député yi di ñëw di 17 novembre 2024 ndax bëgg nañ ndaw yi am ci taxawaay taxawaay bu dëgër waaye yan ndaw la mooy ndaw yoo xamante ni ndaw yi am pas-pas lañ ndaw yi am ngëm-ngëm ndaw yoo xamante ni dañoo am vision ndaw yoo xamante ni dañoo xam li leen yëkkati mhm. ngir ñu ànd booloo doon benn liggéeyal suñ réew kaasal suñ réew la nga xamante ni manqué na ko ay député di ko doxalee ci ab péncëb réew te péncëb réew warta mel noonu lañ fay war a di fa traité ci ay dossier dafa war a nekk loo xamante ni base bi lépp ci xam-xam lañ ko war a teg ci njub lañ ko war a teg ak ci intérêt dëkk bi kon ñu ngi leen wax euh, kontaan nañ bu baax ñu ngi leen wax euh, wa ma zalika ala allahi bi aziz wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf أدائي فرضي شهري رمضاني